asalaamaaleykum chers téléspectateurs de la RMB TV tey nag ñu ngi fii ci district bu Géej am mbégte ak contentement le docteur Thiam docteur Thiam qui s'est spécialisé en santé publique ñu avons payé euh, pour waxtaan ak moom ci émission bi ñuy wax la santé forever ñu bëgg mu waxtaanal ñu tey ci grippe coronavirus ci àdduna bi rawatina ci Sénégal donc gannaaw ba ñu defee suñu présentation ñu suis am contentement ak mbégte di la jox suñu micro di la wax dalal ak jàmm ci RMB TV. Euh, jërëjëf Aby jërëjëf waa RMB TV ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci occasion bi ngeen ñu may di nuyu aussi seen ay téléspectateurs ak seen ay téléspectatrices di wax ni am nañu mbégte bu baax di participer ci sa émission bi di santé forever tour bi moom forever rek santé moom wax dëgg yàlla forever rek la war a doon kon euh, émission bu am solo la ngeen jël aussi benn thème boo xam ni dafa méngoog jamono ànd ak jamono muy li nga xam lii moom mooy coronavirus bi. coronavirus nag euh, ni ñu ko xamee fan yi dafa nekk benn feebar boo xam ne bu bees la bu gane si ci àdduna bi lëmbe àdduna bi yëpp nag daanaka amul benn réew boo xam ni épargné wu na ndax bu mu commencé ba léegi mi ngi law dëkk bu nekk mu nuyoo fa fii nag mu yàgg fi suñu réew depuis le 2 mars nekk di fi lëmbe bu baax a baax xam naa ni loolu moo doon li ñuy ubbee donc euh, ñu jox la kàddu gi après bu ñu demee ba ci biir ñu xool waxtaan bi nan lañ ciy indilee ay leeral pour askan bi mën a xam nan la ñu mën a taxawee ba li nga xam ne moom mooy feebar bi du leen mën a sonal. d' accord docteur ñu ngi lay jaajëfal instant bi ñu ngi leen di rappeler waa suñu thème bi suñu thème bi moo nekk grippe coronavirus ci Sénégal ci àdduna rawatina ci Sénégal. léegi donc suñu première question moo nekk parce que ñun dañu seetlu que dans le monde entier gis nañ ko corona baa ngi law di law léegi dañuy dégg à chaque instant ay mort France États-Unis et tant d'autres pays yi nga xamantene chaque jour dañ koy dégg mais dañ lay laaj donc euh, pourquoi Afrique amul ay cas yu bari ci coronavirus bi. Euh, jërëjëf euh, Abi sa question bi nek na question bu am solo ndax bo xolé comme ni nga ko affaire bi nekkul ni lu tax euh, Afrique amul ay cas yu bëri Afrique ah kay am na ay cas yu bëri parce que cas yi boo seetloo dafay proportionnel maanaam day méngoo ak population yi ndax Afrique comme ni nga ko waxee bu fekkente ni da nga jël Afrique kese mu nekk euh, benn ci cinq continents yi nga xam moo nekk ci àdduna bi wërngal képp boo xoolee population taxul mu demee noonu boo xoolee yeneen dëkk yi lu tax seen ay euh, nombre de cas di c'est parce que seen population dafa am noo xam noonu la ñu day noonu la ñu toll boo xoolee ku mel ni Chine mi nga xam ni ay population ay milliards ngay wax donc un milliard quatre cent donc loolu nombre de cas am day bëri par rapport ak Afrique wala par rapport ak Sénégal bi nga xam dañuy wax ay 15 millions d'habitants 16 millions d'habitants donc ci lolu lañ koy xayma ci lañ koy gissé mais nekkul ni ñun suñu ay nombre de cas dafa bëriwul loolu mooy benn beneen bi si dess aussi moy comme niñ ko waxé ñun Afrique aussi euh, nombre de cas yi nga xamni mom lañuy am ci Afrique wërngël këpp du mëna yam ak dëkku tubaab bi ndax ñom dañoo am xarañ dañoo am li tubaab di wax technologie mais aussi dañoo am ay structures yi nga xamni ay structures de santé la yu doy maanaam képp koo xam ni soxla nga faju am nga ay bërëbu fajukaay yu doy yu wër at seen réew am nañu ay fajkat yu doy yu wër seen réew am nañu ay laboratoire yu doy yu wër seen réew képp koo xam ni da nga feebar fa nga feebaree à la minute près mën nañu xam ndax am nga feebar bi wala amoo feebar bi beneen bi des aussi mooy képp ku ci feebar aussi doo rëcc li ñuy wax le système de santé mais boo xoolee Afrique demeewul noonu Afrique bari na ci ay réew yoo xam ne tey ci tey nit ki bu corona yi pour ñu xam ne dafa corona du yomb nit ki sax mën na tëdd ko këram am corona ba wér te kenn du ko xam mën na tëdd këram am corona faatu te kenn du xam ne corona moo ñu dem suuli et cetera et cetera loolu nu muy wane rek mooy ñun suñu ay système de santé pour ñu a tracer wala pour ñu mën li nga xam ne moom mooy nombre de du yomb loolu mooy tax des fois dinañ wàññi di wax ni lii lañ am lee lañ am mais dinañ ci bëri yoo xam ni kenn gisu leen kenn wàññiwu leen loolu nag mooy li nga xam ne moom mooy différence ñun ak tubaab yi pour wax la ni la ñaar yooyu moo koy expliquer bu ci jëkk ni ma ko waxee mooy population yi ñoom ñoo ñu ko gën a barile ñaareel bi aussi ñoom seen système yi nga xam ne mooy système de santé am na performance bi nga xam ni amul dara lu leen di rëcc ci information sanitaire ñun nag am na ay information sanitaire yoo xam ne dinañu rëcc muy Sénégal muy yeneen pays Afrique yi. donc kon dafa mel ni question bi leer na naan euh, léegi dañ bëgg ñëwaat ci suñu deuxième question bi parce que dañoo seetlu que depuis corona bi yegg si Sénégal boo sëkkatee ñu ne la mbaadu. nga tisooli ñu ne la mbaadu léegi dañ bëggoon xam est que am na différence entre corona ak grippe. waaw différence bu rëy am na diggante corona ak grippe euh, corona feebar la grippe aussi feebar la ñoom ñaar am nañ lu ñu niroo waaye bare na lu ñu wuute li ñu niroo mooy ñoom ñaar ñëpp ay virus moo leen di joxe. virus nag boo ko déggee xam nga li nga xam ne moom mooy micro-organisme mooy xeetu mbindeefu yàlla yi nga xam ne dañuy joxe feebar ñu koy wax micro-organisme yooyu dafa bari ay façon am na daanaka ñeenti xaaj xaaj yi am na ñoo xam dañ leen di wax ni ay parasites lañu am na ñoo xam dañ leen di wax ni ay champignon lañu am na ñoo xam dañuy wax ni ay bactéries lañu am na ñoo xam dañuy wax ni ay virus lañu mais boo xoolee corona virus dégg nga donc moom virus la grippe aussi virus moo koy joxe corona virus moo koy joxe grip virus moo koy joxe donc ñaar yooyu niroo nañ fa feneen fu ñu niro mooy ñoom ñaar ñëpp dañuy jàpp li nga xam ni moom mooy dënn ak saqat ak noonu la ñuy wane woo donc ni ñuy wane woo aussi ñoo ko niroole moom la tubaab di wax manifestation clinique euh, wolof di ko wax ni nga xam ne mooy mandargay feebar bi ay mandargay feebar aussi grip ak coronavirus ñoo ko niroole parce que seen ay mandarga lan la yaram bu tàng seen ay mandarga lan la saqat seen mandarga lan la tisóoli seen màndarga lan la put buy metti et cetera donc loolu mooy mandarga yi aussi ñoom ñoo ko niroole bon boo xoolee aussi ni nga xam ne noonu la ñuy wàllantee aussi ñoo ko niroole fenn fi mais corona am fu mu ko ëppalee ndax grippe fan lay wàllee grippe lu muy wàllee rek mooy ni nga xam ni noonu la grippe di wàllee noonu la corona di wàllee lu ci corona teg nga xam ne ñoo ko bokk mooy mode de bi mooy li tubaab di wax transmission aérienne wala transmission gouttelette loolu mooy lan lu tax ma takk sama masque bi te ñuy wax di ñaan ñëpp ñu takk masque parce que gis nga bu fekkente ni da am grippe wala nga am korona doomu jàngoro bi day nekk sa dënn wala mu nekk ci sa put booy wax yi nga xam ne mooy génn sa gémmiñ mën na ànd ak doomu jàngoro ji boo saxatee doomu jàngoro ji mën na génn ànd ak loolu boo tislee doomu jàngoro ji mën na génn ànd ak loolu mais loolu nga xam ni moom lay tisli yow mi feebar muy génn ki nekk sa wet bu fekkente ne gis na mën ak yow ni ñu sore yow ni loolu c'est pour respecter la distanciation boo amoon feebar doomu wàll su ma amoon feebar duñu wàlla parce que bu fekkente ni corona bi la dañuy wax ni boo xasee am 1 mètre de distance boo xoolee sama fii fii mën na 1 donc kon man même fekkente ne am naa ko la ko wàll mais yow aussi a aussi beaucoup de ko donc bobu premier mode de transmission bo xamni ñoko ñoo manam nit ki soit mu soit mu tisli soit mu wax li nga ni moy si nonu and ak virus yoy bu de ki nga xamni ne nek ci si mën na ko bu ko noyé day dugg ci biram donc da kay wal lool moy ben bi nga xam mode de transmission manam yoon bu muy jaar pour walé ñu niroole ko am leneen nak corona moko corona dafa am en plus ci transmission bi nga xam transmission noyyi dafa am moom lu transmission contact loolu moo ngay dégg ñuy wax ni ñu wut alcogel mooy gel di suñu ay loxo wala ñuy raxas suñu ay loxo parce que bu corona doomu jangoro ji mën na ci ay surface maanaam bu ma doomu jangoro ji mën na tag fii su ma tisoolee wala ma saxat sama ordinateur doomu jangoro ji mën na sama téléphone doomu jangoro ji mën na ci tag donc bu ci tagee su ma ko ak sama loxo doomu jàng mën na ci téléphone bi wala ci portable bi wala ci table bi ñëw ci sama loxo bu ñëwee sama loxo apart partir de ce moment mi ngi sama loxo donc bu nekkee sama loxo ma jël sama loxo boobu nga xam ni dafa setul doomu jangoro ñee nekk ma yóbbu ko ci sama wala ma yóbbu ko sama bakkan wala ma yóbbu ko sama bët su boobaa doomu jàng mën na jóge sama loxo dugg ci sama biir yaram jaar ci bët bi wala ci bakkan bi wala ci gémmiñ bi su boobaa aussi loolu dafay nekk beneen xeetu wàll ñu koy wax transmission contact mais loolu coronavirus moo ko ëppalee grippe grippe du wàllee noonu mais corona dina wàllee noonu maanaam beneen bi ma la jox pour différence mooy que ni ñoom ñaar am na lu ñu bokk ci ni ñuy wàllante mais am na beneen boo xam ne grippe moo ko euh, coronavirus moo ko ëppale beneen bi nga xam ne aussi bëgg naa ñu dellu si ci mooy ni nga xam ne aussi lu ñu bokk li virus am na ay grippe yoo xam ne am nañu parce que grippe yi dañoo bari façon mais am na ay grippe yoo xam ne am nañu vaccin mais grippe yëpp amul benn bu ci am faj parce que grippe comme ni koy waxee virus moo koy joxe adduna bi ba muy adduna ba tey jii ñuy wax waa kër docteur ak borom xam-xam ñi ngi wër waaye gisaguñu benn yoon benn garab boo xam ne mën na rey benn virus. virus yi nga gis ñu mu nekk di dal nit yëpp virus yooyu day dugg ci yaramu doomu aadama yaramu doomu aadama moom mooy jóg di xeex ak moom pour mën a éliminer virus boobu mën ko génne ci boppam. loolu mooy li nga xam ni moom mooy caractéristique gu grippe yi yemul ak palu wala yem ak tuberculose wala yem ak leneen nga xam ne dañ lay jox doom nga naan ko doom bi mooy rey doomu jàngoro jot ci sa biir donc virus tollooguñu foofu donc grippe ak corona tamit ñoo niroo loolu amuñu li nga xam ne moom mooy traitement bon virus ak corona aussi am nañu fu ñu wuute am na ay xeetu virus yoo xam ne am na vaccin am na virus yoo xam ni am na ay grippe yoo xam ni boo jëlee vaccin bi doo am grippe bi mais corona tey yi ñuy wax ak yéen amul li nga xam ni moom mooy vaccin donc loolu daal fekkente ni ci tënk mën nañ la wax wax naa la léegi fi nga xam foofu lañ niroo wax naa la fi nga xam ne aussi foofu lañ càqalikoo waaw. d'accord donc léegi suñu li ñu euh, war nañoo a ragal cas communautaire. waaw cas communautaire dañ ko war ragal xam nga lu tax ñu war ko ragal parce que bu fekkente ne du cas communautaire bu dee cas contact di nga xam ni kii cas contact la di nga jël sa précaution di nga moytu. mais bu dee cas communautaire kenn du ko xam cas communautaire mooy lan mooy ki nga xam ni am na jàngoro ji wala wàll nañ ko te xamul kat moo ko wàll léegi comme moom wàll nañ ko te xamul kat moo ko wàll ça veut dire que ni kon kooku am na ku nekk si biir askan bi koo xam ni mi ngi wàlle mais yëgul sax ni feebar na te nit ñi aussi yëguñ ñi feebar na kooku aussi danger la parce que lu tax mu nekk danger mooy nit ku feebar di nga xam ne kii dafa feebar nga jël sa précaution wala nga moytu mais fekkee ne dafa mel ni man mel ni yow mel ni keneen di dox soxlaam di dem marché di buuxante surtout temps yi nga xam ni eh, sooween yeeg saareen yi ñu ngi commencé kontaan ndax korité gi mi ngi jege si ñu dem marché fii buuxante fii jënd bi fii dugg bi génn bi fii tey yi ñëw yi et cetera donc kooku nekk ci biir nit ñi ak ci oto yi di dugg di génn di yéeg di wàcc yore feebar bi mën di ko wàllee té vraiment yegul sax mom ni mi ngi kay walé nit ñi yegul tamit ni ma ngi leen kay wal lolu aussi dafa nek lo xamni danger danger la dafa nek lo xamni aussi il faut ko ñu moytu ko bu baax kenn ku si nekk gën a góorgóorlu jël sa ay matukaay mais fexé ba mm, kum mu ci mënti doon muy communautaire muy contact muy kum mu mënti doon kenn du loo wàll mais aussi yow aussi do wal kenn. dafa mel ni ba tey ñu ngi ak suñu docteur docteur Thiam bu nekk ci district bu Géej. ñu léegi donc euh, ak tiis bi nit ñi amoon ci moment boobu noonu est-ce que moo nekk nii ci coronavirus bi. Euh, njàqare ak tiit boobu ñoo ñu amoon ak ñun bii ñu am nii du benn parce que grippe espagnole comme ni nga ko waxee li mu daan faat ci nit corona bu faatul lu toll noonu corona bi li ñu seetlu mooy que ni gis nga Sénégal li mu toll defi mu dem ko démarré ba léegi on est à 30 décès xeebuñu ko parce que décès moom même bu dee benn sax dafa bari mais eh, lu ñu la mën a wax rek mooy li ñu jàpp mooy corona bi li muy rey à peu à 2 pour cent lay toll maanaam téeméeri nit du nekk benn nit la siy wala ñaar alors que woowu la nga xam ni moom mooy mortalité bi maanaam ñiy dee ci téeméer bu nekk ëppoon na loolu. actuellement nii moom lan la ñu war a gën a góorgóorlu c'est vrai que coronavirus bi euh, li muy rey bariwul. mais lii tax ñu war a gën a góorgóorlu taxaw seetlu wala góorgóorlu wala fexe ko xeex wala fexe ko fi génne lenn la mooy que ni actuellement ni dafa nekk feebar boo xam ni feebar bu bees la kenn maîtriser gu ko comme kenn maîtriser gu ko nag dafay xaw doy waar xam nga noonu da nga koy xam mën ko xeex mais fekkente ni xamuloo ko mënoo ko préparer comme moom nag xam-xam bi ñu am ci moom doyul connaissance les connaissances sont pas encore suffisantes sur le virus donc xamagoo ba tey jii ñu ngi naan mi ngi def lii mi ngi def lee mais lu mu mëne mëne ba dëgg-dëgg xamuloo ko boo amee noonu nag ndax mom day fetale xamuloo ndax mom day jame paaga xamuloo ndax mom fett la ay wala leneen la ay donc kooku noonu boobu doo ko mën préparer mais fekkee na nga am non mu leer la ni non bi mom fet le man da ngay fexé ba doom arc wala doom flèche su ko défé dotul régler dotul poser problème wala xam ni sa non bi kat fetal kese le man nga fexé ba doom am bal bo xam mom lay tiire exemple biñu mëna jox rek tay bu fekkonté ni jaan fa nek fi bo jëlé jaan bi génn bëñ yi matt rek la jaan mën mënul leneen donc bo dindé bañi dotul dootul kenn donc dotul jarati ragal pour wax né tay ci tay né nit ñi dalal seen xel parce que di am psychose manam di am ay titangé wala di am ay njaqaré soxlawuñu loolu lu ñu soxla mooy ku nekk am dal kenn ku nekk xam ne mbir mi war nañ ko xeex war nañ ko moytu waaye warul yóbbu suñu fit parce que boo jëmee ci lamba ji di dem naan dañ may daan boo demee dañ lay daan rek mais bu fekkee ne da nga taxaw ni damay daan boo demee da ngay daan kon virus bi nañ jàkkaarloog moom wax ko nekk ñun dañ ko fas yéene daan ñu daan ko parce que aussi ku nekk li nga war a jël comme ça ay précaution jël ko après nga dem doxi sa soxla nga dem waxi sa soxla après mais nga dox sa ful ak sa fayda boo paree nga del sa kër nga toog mais grippe espagnole euh, yamul dara soreyoo na lool ak li nga xam ni moom mooy vraiment euh, corona bi

mi ngi mel na état état boo gis dafa am ay soldats am ay militaires yoo xam ne tey ci tey bu ko beneen réew bu mel ni moom bëggoon song ñoom ñooy taxaw xeex yaram aussi dafa am ay soldaa yoo xam ne lépp lu bëgg dugg ci yaram bi loolu ñoo ñu ñooy jóg pour xeex ñoo ñu war a jóg pour xeex nag bu fekkee ne da nga nekk ci ay mag ñooñu di jóg di xeex soldaa yi du ñu am doole ndax dañuy màgget comme màgget bi bu dee xale soldats yi duñu matagum comme ni xale bi matagulee bu dee jigéenu wérul comme ni ko olof Njaay di waxee jigéenu wérul moom wérul déjà donc moom moom tamit ay soldaam dañuy néew doole donc bu fekkee ne soldaa yi ci yaram bi war a taxaw lépp loo xam ni noonu la dugg ci yaram bi ñu war a taxaw ak moom xeex ko génnee ko ci amuñu doole wala màgget nañu wala euh, mataguñu loolu bu fa leneen duggee loolu day yomb mu daan wala mu gaañ li nga xam ni moom mooy yaram bi donc loolu rek moom mooy différence bi lu tax mag ñi di ko gën a am lu tax aussi ñi nga xam dañu am jabet wala ñi nga am yeneen feebar parce que yeneen feebar yi boo xasee am li nga xam ne moom mooy soldaar yooyu sa soldaar yooyu dañuy feebar te bu soldaar yi feebaree day poser problème boo seetloo tey ci tey grippe bi da nga gis ñi nga xam ni ay jeunes lañu dañ koy am pas grippe bi ak safurla coronavirus bi jeunes yi da gis koo xam ne am na ko. ñu yóbbu la teg la benn place nga wér sans pour autant sax ñu jox la sax benn comprimé am na ñoo xam ni am nañ ko ba mu génn si ñoom wér te naanuñu benn doom donc pour wane rek ni lépp mi ngi dépendre ci li nga xam ne moom mooy défense yooyu nekk ci say yaram ñu koy wax système immunitaire boobu fekkente ni système bi c'est compétent mi ngi taxaw am na doole mën na xeex mën na jàkkaarloo ak noon bi nga xam ne mooy coronavirus du am benn problème mais mag ñi loolooy seen problème seen ay défense mënul jàkkaarloo ak virus bi

da nga nekk en contact ak moom bu fekkente ni nit gi gis nañ ni dafa am virus bi par exemple exemple bu ma la mën a jox léegi man tey tey bu ñu waxoon ni docteur Thiam am na euh, jàng doomu jàngoro ji lu ñuy wax dañ naan kan la saafonte loon fan yi ñu ni soxnaam ñu ni doomam ñu ni keneen ak keneen parce que ñooñu ñoo nekk en contact rapproché ak man peut-être suba ñu ni ak secrétaire am wala yow ñëwoon nga fa ñu ni non yow contact nga mais contact boo xam bi doo contact rapproché contact bu éloigné nga contact parce que man ak yow c'est vrai daan na nga ma un mais yor naa sa micro te boo paree da ngay jëlaat sa micro parce que utiliser naa sa leneen boo paree da koy jël et contact daal pour muy euh, gàtt noo ko mën a comprendre mooy nit koo xam ni am na jàngoro bi rek dañuy seet képp koo xam ni jokkalante na ak moom ku mu jokkalanteel rek virus bi mën na ñëw ci yow loolu. waaw contact boobu bu xasee ba am ñu seet nit ki gis ni am na doomu jàngoro ji dañuy wër ñi nga xam ne jokkalante na ak ñoom ñëpp ñooñ ñooy contact yi les contacts yooyu ñoom ñëpp dañu leen di wër testé leen seet leen ba xam ndax amuñu wàllu ñu leen ko wala déet bu ñu leen testé seet gis ni wàllu ñu leen ko du doy il faut ñu toogaat 14 jours testé waat leen parce que virus bi aussi mën naa la ko wàll fekk na feeñagul parce que test bi dañ koy xool rek laboratoire mais am na noo xam ni foog àgg foofu ci dayoo pour ñu mën ko gis laboratoire am na xam bu fekkente ne àggu fa laboratoire du ko mën a gis kon loolu aussi dafay gis nekk problème moo tax il faut que li tubaab di wax délai d'incubation incubation mooy diggante diggante bi nga xam ne ci la euh, euh, feebar bi duggee sa yaram ak diggante bu muy feeñ. loolu mooy délai d'incubation 14 jours la donc peut être bu la. d'accord question boobu dafa mel ni mën nañ jàll ci boobu ndax c'est déjà répondu léegi euh, beneen question bi ñu la bëgg a poser mooy que donc dañ dégg ñuy naan takk leen seen masque lavez-vous les mains ak lan éternuement ak distance bi tout ce qui va avec léegi dañ lay demander bu ñu bàyyi geste barrière yépp est-ce que am nañ beneen moyen boo xamante ne mën nañ ko utiliser pour mën a xeex corona bi. non euh, moyen yi nga xam moom la ñuy xeexee corona bi mooy geste barrière yi. Euh, lu tax parce que geste barrière boo wax naa ko léegi man bu ma takkee sama masque même bu fekkee man am naa doomu jàngoro bi Euh, tey ci tey su ma waxee du génn doomu jàngoro bi du génn su ma tisawalee du génn su ma saxatee du génn fii lay des ci biir li nga xam ne moom mooy masque bi donc comme génnul du ma ko wàll keneen donc loolu benn la ñaareel nee naa la doomu jàngoro bi mën na tag ci loxo donc fekkee ne yaa ngi raxas sa loxo même mu fekkee tagoon na sa loxo boo raxasee sa loxo avant ngay utiliser ñetti bunt yi nga xam ni fa la mën a jaar pour dugg fa donc dootu fa mën a dugg donc raxas sa loxo dafa am solo ñetti bunt kese la doomu jàngoro ji mën a jaar foo dugg si yaramu nit mooy gémmiñ waxoon naa ko dama koy répété mooy bakkan mooy bët yi donc foo tollu balay sa loxo di dem ci ñetti bunt yooyu fexeel sa loxo set donc fexe ne sa loxo mi ngi set doomu jàng même bu nekkoon ci sa loxo boo raxasoo dañ na donc boobu mooy beneen geste barrière bi beneen bi ci topp aussi ñuy wax ni booy saxat wala ngay tisli jëlal mouchoir boo jëlee mouchoir nga saxat si boo paree nga dugal si mbalit parce que boo jëlee mouchoir saxat si loolu nga saxaat ci mouchoir yi même bu fekkente ni doomu jàngoro ji génn na ci mouchoir bi lay des boo ko defee ci mbalit bi dee na ñu ni la bu fekkee ne amuloo mouchoir nga saxaat ci sa poqotaanu loxo boo saxatee ci sa poqotaanu loxo nii par exemple fekk na takkuma masque ma saxat def nii mu ko defee doomu jàngoro ji fii ci yére bi lay teg bu tagee fii doomu jàngoro mënul dund ci yére donc après dafay dee jeex na donc par contre fekkonte ni da ko def non rek ci jawu ji mën na dem Wal abi yi mën na dem wàll suñu cameraman mën na wàll mën na wàll mën na donc lool daal moy geste barrière yi wax ni doyna seuk seuk seuk pour jëlee fi coronavirus bi fekkonte ni 15 millions de Sénégalais yëpp def nañu geste barrière kon coronavirus bi légui daf fi dal di jóg. d'accord donc léegi am nañu mbégte ak contentement chaque instant ñu nekk ak suñu docteur mu ñuy andi ay leeral ci coronavirus bi ak ci grippe bi parce que coronavirus bi sonal nañu trop vraiment instant moo benn activité ndax coronavirus bi ah, donc yaa am ah, gën a xam li may wax ah, <laughs> euh, sama beneen question mooy euh, côté traitement bi est que antibiotiques yi bokk nañ ci classe yi mën a faj coronavirus. Euh, déedéet antibiotique du faj corona antibiotique comme niñ koy waxee. ay bactéries infection bactérienne lay faj xam nga sank séddale woon naa xeetu feebar yi ñeent nee naa am na parasite am na champignon am na bactérie am na virus yii yëpp nag am na lu leen di rey champignon am na garab bu koy rey parasite am na garab bu koy rey parasite mooy ay saan ay kii tout ça ah champignon mooy lépp loo xam ne moom la ay xam ay ay feebaru der ak yooyu yooyu en général ay champignon lañ bon bactéries mooy lépp loo xam ne ay infection lu mel ay tuberculose ay yeneen xeetu feebar yoo xam ni ay salmonellose yooyu ay euh, feebar la yoo xam ni antibiotique moo koy faj mais lii di virus coronavirus grippe ak lépp loo xam ni virus la loolu amul garab boo xam ni tey mën na ko faj léegi-léegi nag di nga gis ku am corona ñu jël antibiotique jox la mais ça ne pas pour mu rey corona bi la mais peut-être pour mu rey beneen doomu jàngoro boo xam ni fekkoon nag fa te ñoom ñaar bu ñu àndee kenn ku nekk day may sa morom doole te ñuy gën a sonal li nga xam ni moom mooy Euh, yaramu doomu aadama bi léegi loolu moom mooy nekk euh, li nga xam ne mooy philosophie lu tax ñuy joxe des fois ay antibiotiques wala ay yeneen garab parce que day tax lépp lu fa nekkoon loo xam ne bokkul woon ak corona bi mu mën ko rey su ko defee doomu jàngoro ji mën a jàkkaarloo ak yaram bi kese du am keneen ko xam day sat. léegi tout à nga wax ni euh, coronavirus amaguñu ko léegi man jox donc personne yi nga xamante ne chaque instant on attend la télé. wala à la rajo ñuy naan wér na wér na tant de cas guéri affaire yooyu noonu loolu mën a andi ci loolu. waaw lu mu mën a indil mooy actuellement nii li nga xam ne mooy coronavirus traitement symptomatique kese la am xam nga traitement symptomatique boo ko déggee mooy faj boo xam ni fajub luy metti la boo amee corona ni sam bopp day metti ñu jox la sa nga naan sa bopp sedd boo amee corona sa biir di daw ñu jox la garab biir day daw boo amee corona di wocc ñu jox la garab boo amee corona sa yaram di tàng ñu jox la paracétamol sa yaram sedd mais garab boo xam ne dañ la koy jox pour corona bi ci boppam amut léegi-léegi moo tax ngay gis ñoo xam ne dañuy am corona ñu dugal leen ci centre de traitement yi ba ñu génn te kenn du leen jox dara parce que ñoom amuñu dara lu leen métti fekkee ne dara méttiwu la soxlawul ñu lay jox benn garab donc loolu aussi il faut ñu comprendre nga xam ni traitement bi noonu lay demee loolu mooy tax léegi léeg ngay dégg ni kii yóbbu nañ ko delloosi nañ ko géri na mais amul dara loo xam ne lii garab la boo xam bii naan naka parce que amul dara loo xam ni soxla na ko comme garab. benn lu waaw lu mu mën a indi foofu ci leeral rek mooy euh, di wax nit ñi ni corona bi du ay naxe mbaay lu am la parce que feebar boo xam ni yaa ngi ko gis yaa ngi koy dégg ñun ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg ñu ngi gis ñu muy faat. yaakaar naa lu nit dégg di dégg di buñ ne diw mii kat corona moo ko rey nga war a mën a gëm beneen bi si des gis ngeen ay célébrité à travers le Sénégal ak lu monde ci biir réew mi dégg ngeen ay nit yoo xam ni am nañ tur lool corona yóbbu leen ñu ngi ñaan yàlla mu xare leen aljana donc te seen ay euh, ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi yàlla teg seen loxo seen ginnaaw am na ci tamit ci biir àdduna bi ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a siiw corona yóbbu na leen donc kon corona bi du ay naxe du ay lépp lu dëggu la dëgg la nañ ko moytu nag parce que bu ñu ko moytuwul après lu muy indi rek mooy ay jaxasoo comme ni nga ko waxee sànq parce que boobu ba léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ministère la santé ak ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur ñu ngi góor góorgóorlu di jéem a faj li nga xam ne moom mooy ñi feebar mais am na foo bu fa tolloo dootuñu leen mën a faj day commencé bari te bari bi bu bare benn bari bi dootuñu xaj ci li nga xam ne moom mooy kër docteur dootuñu xaj ci hôpitaux yi dootuñu xaj ci centre de santé yi dootuñu xaj ci poste de santé yi finalement dañuy bàyyi kenn ku si nekk defal boppam ku nekk doxal boppam defal boppam te loolu aussi musiba la parce que tamit wax dëgg yàlla euh, bëgguñu suñu population bi li nga xam ni moom nga doon wax léegi en 1918 xewoon mm-hmm. mën na xewaat parce que euh, buñ ne euh, li nga xam ni moom mooy feebar bi 2 pour cent lay rey 2 pour cent de 100 2 personnes la mais 2 pour cent de 10 000 ñaata la. deux pour cent de 1 million ñaata la donc loolu aussi il faut que ñu góorgóorlu bala ñu egg foofu parce que bu ñu fa yeggee dana nekk loo xam ni catastrophe la ndax lu lay wan ni corona bi mm, jarul sax ñuy laam-laami am nag amul euh, kan moom mës a gis ba mu juddoo ba tey jii lenn lu tax màkk ñu xëy ni amatul ak loolu xanaa lu ñu politique politique daañ ko fi bàyyi xanaa lu ñu doywaar doywaar daañ ko fi bàyyi ñu xëy li nga xam moom mooy suñu mbokku chrétiens yi gis ngeen ñu ni Rome amul nga xëy ñun la pak amul nga gis dañ daan woor ba pak ñëw seen korite ñu def lu nekk ñu ne amul ren gis ngeen korite gi macha allah nee nañu gis nga ay gis nañu ay arrêté ay lu nekk ministère de l'intérieur et cetera kenn du dem fenn kenn ku nekk fu la korite fekk foo ngay toog korite gis nga tëjoon nañ fi marché yi tëjoon nañu fi jumaa yi et cetera et mais loolu mosul am on l'a jamais connu kenn mosu ko xam kenn mosu ko dégg loolu nag li nga xam ne moom mooy feebar bi moo ko waral feebar c'est pas parce que tijji nañ jumaa rek non c'est parce que continuer nit ñi di il faut que de temps en temps aussi nous jéem aussi leen ku responsabilités continuer parce que bu ñu bloqué bloqué dana dem ba adduna bi dootul doxati te adduna bu doxatul du corona mooy rayati nit ñi bu booba ñàkk ceeb bu ñu lekk xam naa ni saaree ne soowee ne xam naa ne dinañ ci kontaan am nañ problème bu boobaa donc loolu moo ñuy rey waaye corona dootuñu rey ndaxte bu fekkee ne tëj nañu ku waroon jaayi jaayi woo ku waroon wuti dépense wuti woo ko docteur bi waroon dem liggéey wala liggéey ba weer bi dee état bi amul lu mu ko fayee wala leneen ak leneen yooyu dafa nekk yoo xam ne aussi dafa jar a sóoraale xeex corona baax na waaye aussi nit ñi dund tamit moo gën xeex corona. waaw sama mot de la fin mooy gërëm leen sant leen d' abord ci occasion bi ngeen may ma jàkkaarloog askan bi yëpp mën a waxtaan ak ñoom delloo si seen xel donc yàlla lu mu moyul boppam du ko moy keneen donc tout le temps bu ñu toogee di xaar yaakaar ni ñëpp dinañ d'accord du sotti moo koy nañ jéem a waxtaan rek bis bu nekk rek ñuy gën a sensibiliser bis boo sensibiliser am kenn ku nangu beneen nee nga def keneen nangu ainsi de suite mais ñëpp nangoo noo moom du yomb mais lu ñuy ñaan rek mooy kenn ku si nekk na ubbi bëtam ubbi noppam utiliser li nga xam ne moom mooy xelam mu xam ne lii ñuy wax ni du ay caaxaan mu góorgóorlu taxaw mu bañ a dugg ci moom bañ dugg ci njabootam man d'accord nañu wax ni corona amut bu leen neexee waaye nañu góorgóorlu ba corona bu mu dugg si ñoom képp koo xam ne ki taxaw nga respecter les gestes barrières ba li nga xam ne moom mooy feebar bi dootul tasati ñun loolu rek la ñuy wër bu leen neexee ngeen wax ni amul waaye góorgóorlu leen ba bu leen am te bu leen ko wàlle donc daal nañu sensibiliser nit ñi gën a góorgóorlu ci gestes barrières yi góorgóorlu ci toog bi nga xam ni moom la ñu santaane su ko defee feebar bi mën si génn ñëpp delluwaat seen activité jàmm dellu si waat ci kàttanu yàlla. la ñuy corona am c'est une réalité donc bu ñu xeeb daral loo xamante ne daal war nañ mën a def pour dans corona daal ku nekk mag xale ndaw ñëpp jóg pour que ñu éradiquer maladie bi en tout cas docteur Thiam kontaan naa trop ci disponibilité bi vraiment yombalal nga ñu ko trop trop bi ñëwee amuñu benn problème mention spéciale à vous ñu ngi lay sant di la gërëm ñu ngi sant aussi Pouya bu baax a baax sama tata moo jaar fii sama caméraman bi Thierno Laurent maa ngi koy remercier bu baax a baax salon aw fàttewuma ko benn yoon di baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak merci beaucoup ba beneen numéro incha allah.